لي سكينة بكل man euh, Moustapha Diakhaté man maa jiite association bu ñuy wax ASSIR national ASSIR mooy ñi nga xam ne association insuffisance rénale xam ne ñi nga xam ne yàlla dafa nattoo ñu am feebaru rein euh, te nekk fii ci dëkk bi ci région de Diourbel man maay euh, président bi nga xam ne maa jiite association boobu waaw jàngat bi ci am mooy sëñ bi sas nañu sasaale mbooleem koo xam ne ci ci dëkk bi nga nekk euh, ndax dafa am jàngat boo xam ne def naa ko ci mooy sëriñ bi dañ ko leeral li nga xam ne mooy tawat jooju nim dal ci dëkk bi dañoo bari lool te amuñu fuñ fajoo ndax euh, liste d'attente bi duma ko wax chiffre bi waaye ay ay téeméeri téeméer yoo xam ne amuñu fuñ fajoo ñi nga xam ne am nañ fi ñu fajoo juróom-ñaari machine moo nekk hôpital juróom-ñaari masin ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo fa mën a fajoo par weer léegi nag bi nga xamante ni jàmbat nañ ko sëriñ bi sëñ bi dañ cee def ay waxtaan ba yàlla dogal am benn taalibe boo xam ne taalibe sëriñ Touba la mu jox ñu benn terrain bu dend ak hôpital ba ni ñu defoon ñun ba tabax hôpital ba ci ci loo xam ne murid yi rek ñoo ko defoon moo taxoon ñu walanteeru ni nañ fexe ba defar centre hémodialyse boo xam ne benn lay doon ci Afrique yàlla dogaloon tamit ñu am terrain boo xam ne 1400 mètres la euh, ñu leeralaloon ko sëñ bi sëñ bi loolu woo moo waraloon mu doon ci feeñal yéeneem ak joxe ndigalul ñu tàmbali ko moo tax mu yëkkati lim bu toll ci fanweeri million jox ñu ko ngir ñu tàmbali ci liggéey boobu te xam ne mi ngi koy ànd ak ñun te di ñu ci jox ndigal it ñu ànd ceeg mbooleem koo xam ne mi ngi ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu sel bu Tuubaa ak fu mu waaye mën a nekk tamit ci réew mi. machine yi disponible na ba pare ndax partenaires yi nga xam ne ñooy xaar pour ñu am barab bi. ay partenaires yu wuute lañ yoo xam ne saa buñ noppee ñoom pare nañ pour monteel ñu machines yi nga xam ne moom la nit ñi di soxlawoo la ca nekk mooy barab boobu moom lañ soxla te ñi ngi ci di def ab liggéey euh, loolu moo waral sëñ bi leeral loolu ndax centre bi dañ ko bëgg a def muy centre boo xam ne Afrique de l'Ouest benn la ciy doon plan bi ñëw na waaye dafa nekk ci siiful bu mag a mag il faut ñëpp jàpp ci pour ñu mën a dem euh, am nañ nag yu bare bëri yoo xam ne ñu ngi koy xaar ndax xalifa yi nekk ci dëkk bi dinañ def benn karawaan kenn ku nekk ñu leeral la fa liggéey bi toll kenn ku nekkit am na taalubeem bu fa nekk di faju ngir nga xam feebar bi dëgg-dëgg mooy lan. waaw xam nga sëriñ bi ci journée mondiale du rein la njëkk yónnee ndaw mu yónni sëñ sëñ maam Thierno mii mu ñëw ci ñun bi mu ñëwee ñetti million la joxe ngir jàppale ñu ci journée bi nga xam ne moom lañu doon def ba lii am bi journée bi jàllee tamit mu waat ñu ci kàddu sëñ Cheikh Bass moom sëñ Abdou Khadir ñu ñëw wuy si ko mu yëkkati segu fanweeri million teg ko ci sama loxo di ma soññ ci liggéey bi tam di ma ñaanal di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoom laa àndal tam ngir liggéey bi ñu tàmbali ko saa bu ñu neexee te xam ne Serigne Touba dana ko àggaleel boppam waaye ñi ci lancé waale appel nag di woo mbooleem koo xam ne mi ngi dégg suñ kàddu xam ne ni ñuy def bëkk bi lañ koy defal ndax feebar la boo xam ne jumbul kenn mi ngi dal ñu bari te kum xes ba dalit boo fajuwul maar day taale la lay xew ci yow du gën kon ñu waajal ko ba nga balaa tawat jee gën a doon loo xam ne day doon loo xam ne luy lor waa machine yi Touba nee naa la sept machine moo fi nekk Sénégal gépp it noonu la demee ndax euh, maanaam euh, euh, machine yu am Sénégal mënta faj taux bi nga xam ne moom la feebar bi dal am na ñoo xam ne ña nga bitim réew mënuñoo ñëw am na ñoo xam ne ña nga Dakar te ñiy dem ci privé bi na nga xamaale ni ñetti yoon la ñuy dem ci semaine bi ci ci hôpital ba te privé boobu 65000 la ñuy fay bu nekk. kon semaine bu nekk cent quatre-vingt-quinze mille la ñuy fay boo ko multiplier par quatre euh, ak ay garabam nit ki day soxla un million pour mu dund ci weer wi donc machine yi li euh, hôpital bi ñuy defar nii nag ñun ñu ci paree mën nañoo am centre boo xam ne fu nit mën a tee tawat ci dëkk bi di nga am foo fajoo ñu teggil la coono boobu teggil la génn gi ngay génn sa kër di dem feneen la ca des na ngay muy garab yaakus loolu say mbokk danañ na ci mën a jàppale mais boo boolee nekkoo ci dëkk bi dem ci privé ba loolu sa dund mënta yàgg ndax loolu kenn amaale wu ko wërsëg tam li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna